ci suratul ahzab moom mooy les coalisés di saar numéro 33 ca dernière page ba yàlla di wax naan yowmal qiyaama ñi wedd yoon borom bi subhanahu wa taala dañ leen di dugal safara di leen mbugal di leen walbati di leen wëlbati ci biir safara ñu yuux naan cey bu ñu xamoon kon ñu topp yàlla topp yonente bi sallallahu alayhi wa bu ñu xamoon kon ñu topp sunna subhanallah ñu ne yàlla ñun de suñuy mag ak waa suñuy kilifa ñoom ñoo ñu réeraloon ñoom ñooñu noonu nañ leen topp waaye bu ñu topp yonent bi sallallahu wa sallam daanu ñuy wax diine daanu ñuy wax yonent bi sallallahu wa sallam mbugal baa ngi nii nag ñu rëcc ko yàllaay wax alxuraan a ngi nii suratul ahzab les saar numéro nga dem ci verset tàmmali ko ci verset mooy 66 nga daal di wàcc ba 68 borom sant Alla mu ne yawma tuqallabu wujuhuhum النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ñu naan yàlla ñii ñoo ñu doon nax yàlla na leen multiplier mbugal bi yàlla ñii ñoom ñoo ñu doon nax fekk ni c'est trop tard avant nag ñu fa yegg alxuraan a ngi nii ñun ñëpp am nañ ci accès nañu dellu jàng xool.